Père Ibrahima Mbaye entraîneur Fass tey ñu bokk ak yow tiis bi nga xamante ne dal na ci monde làmb muy génnub àdduna Père Balla en tant que entraîneur di forme ay xale lu mel nii ban gis-gis nga ci am. waa dañuy wax rek inna lillahi wa inna euh, sunu borom lañ jóge ci moom ci moom la ñuy delluwaat ñu koy jaalee àdduna bi yëpp ñu ko jaalee Balla Gaye Ah, di ko jaale doo Youssou Ndour di ko ba jaale wàllu gépp di ko jaale na axlu làmb yëpp ah, Balla doon na grand boo xam ne la woon parce boo gisee ni muy yore ay xale à l'âge de 16 ans 17 ba 20 ans nga dem tey ba dégg daal yi kooku royuwaay la mën nga ci am diine mën nga ci am lislaam mën nga ci am it taxe ëllëg parce que xale bu xamul dara nga di ko tàggat ba mu yor njaboot yor tey kër am ci teraanga fas yéene cee jaamu yàlla loolu jaamu yàlla foofu la mën a yem kon dañ koy ñaanal rek yàlla ko yàlla yéeg di jéggal te yërëm ko njaboot gi fi bàyyi yàlla suñu borom teg loxoom ci kàttanu yàlla. relation ban ngeen amoon yéen ñaar. waaw man a nekkoon na sama grand boo xam ne ku ma bëggoon la parce que jamono ji mu nekkee RTS danaa def chaque samedi bu ma in chaque samedi bu ma invité wul bu ndawalee ñaari samedi mu invité ma am na benn jour mu woo ma ñaari yoon ñëwuma mu a ma Ibra ma naa ah, ma may daw mu ne ma dama la soxla ñëw parce sa xel do bu ne nga mais sa xel doy na ma ñu ne waxtaan yu bëree bare bëri lu lamb dangereux dangereux dangereux Balla Gaye du wax lu ñaaw da koy dénk yàlla ak yonent bi rek ak sëñ Issa loo wax mu ne yàlla baax na kon kooku royuwaay la am na ñoo xam ne lu lamb dangereux dangereux boo xooli seen kanam xam ne tey ñu soppeeku nan mais Balla dara du ko fëgg combat bi mu ñu bëre maam góor gi ñi àndoon na maam góor gi xale laa mais keroog ci ne kon lamb la. ñu koy ñaanal suñu boroom rek yàlla na ko yàlla jégal téeram te xam ne Balla daal royuwaay la waaw loolu moom xam naa ko ci moom ku baax la ku gëm yàlla la waxam yépp mooy lu am nañ ko teg ci loxo yàlla kon gëm yàlla foofu la mën a yem